kene quoi lii na de lii toog na de eh lii neex na de thank you lady maa ngi lay kontaane bu baax a baax from Gambia I think you were good and everything is right moom ñëwoon na fii last time and that was good ndaxte bi mu ñëwee kontaan na ah, gis na ni teral nañ ko fii ci Sénégal waaw teral nañ ko ci bii boor teral nañ ko ci bee boor loolu mooy Sénégal loolu mooy teranga Sénégal so bàcci li kontaan nañu bu baax a baax a baax right now ñu dem nag ci mbalax mi yëngal yi mu gën a yëngu euh, je vous rappelle que vos vidéos on chez vous na ma bi nee na ngeen bàyyi di woote appel c'est juste pour envoyer vos vidéos et après arrêter parce que lui aussi il bosse sur son numéro actuellement day perdre ay programme am yu bare bu bu ngeen ñàkkee numéro bi nag dootu leen am fu ngeen yónnee on se chez vous nag appel whatsapp yeeg appel normal s'il vous plaît arrêtez ça et envoyez juste vos numéros vos vos vidéos moom bu gisee vidéo yi dina ko teg dégg ngeen ci 77 na bonjour. ça va waaw mais ko kan la. Penda. Penda. noo def. Penda vous nous appelez d'où. foo may woowee. yaa ngi ba Fatick. waaw. Badoo séeréer. ay séer yu réer yéen Cheikh auto école danga may message mais naka mu nag mi ngi cool. ça va. naka jàmm ji lépp taw feex. yaa ngi enjoy. <laughs> enjoy waaw mooy yow xam naa sa dégg xam nga séeréer yi am amuñu dégg-dégg maa ngi lay wax fii nga xam ne enjoy waa mi ngi nii rek. <laughs> incha séeréer yi ah, mënu ma leen bare bu ngeen nangoo nekk suñuy jaam rek yow nag ngaa nekk sama jaam man. Eh, déedéet kon bëggoo ma yow ba ma bëggoon da ngay nekk da ngay nangoo nekk sama jaam parce que maay sa buur. tukulóor buuru séeréer eh. tukulóor jaamu séeréer déedéet séeréer jaamu tukulóor waaye yow sax jërëjëf déedéet yaa ngi juum nga sax. non la loolu man la loolu man la loolu man ah, loolu ci man la nee ma lan la moo xëcaa lii lan la boo lakkee dëkk bi ah, tubaab bi ah. jàpp la lii lan la demal ma xool demal demal. <laughs> yow. jërëjëf waaw maa ngi gën a kontaan saa maa ngi nuyu sama yaay Amisa ak Nogoy Faye. ndeysaan nuyu ko. maa ngi nuyu sama yaay Amisa ak Nogoy Faye ak sama rakk. waaw suuf ca maam bi nga xam ne Ndeye Maguette maa ngi leen di nuyu di leen di ziar fi ñu nekk. allah macha allah. ok bye bye. ayca kontaan jërëjëf merci beaucoup à elle depuis Fatick waa Fatick maa ngi leen di nuyu yéen waa Richard Toll dégg naa leen ngeen naan ma da ngay ñëw ou pas woote leen ma laaj leen laaj ma ba pare euh, parce que ce qui ki nga xam ni moom moo di Sidi euh, euh, waaye moom sama daal yi da nga bëggul feesal wala nu mu demee nii moom da ma iñaane daal yi rafetaay bi ñu ci wax wala <laughs> alors Richard Toll Sidi Diop doit être à Richard Toll ce vendredi ñu ngi may laaj ba xam dinaa ñëw ou bon woote leen ma ba pare dosé ma ñaan ma ba xam ma xool ba xam dinaa ñëw. su ngeen bëggee événement bu neex su geen bëggee gis spectacle su ngeen bëggee gis show bu neex non kon nag foo woo ma laaj ma ba xam dinaa ñëw pa Richard Toll Dagana Podor yéen laay xaar ayca 88 628 14 13 ambiance bi et cette fois-ci c'est au tour de l'international elle est sublime elle a une très belle voix et elle se nomme tout simplement Aïcha Koné pour votre plaisir c'est parti